ce jeudi 9 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacué par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique marquée par l'apparition de cas à transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention collective. Euh, situation wu bés bi tey alxames juróom-ñeenti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat wu examen yi ma jox leen situation bi ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def tey juróom-benn ñoo positif bon ñoom ñoo am muy jorom benn yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ma yëgal leen itam te ci bésu tey bi fukki patient yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout à l'heure ñu yëgal ne patient yu ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas la ñu déclaré fii ci Sénégal si ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar décédé si kenn lañu ñu évacué bond ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu ñuy wax transmission communautaire yu fi feeñ bu baax si kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise de respecter les baax de luy prévention collective que ñu leen demander bi ñu paree communiqué bi damay jox euh, kaddu gi monsieur le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur monsieur le ministre Amadouba, pour que nous jottali leen message yu jëm surtout ci suñuy euh, compatriotes yi nekk bitim réew maa ngi leen geschimmelt.